gaawal gaaw seet si ñii ah, nag da nga mën a doxee sa soxla de te dara du la umpaseel say jumtuwaay dañ lay yi ak sa téléphone ngir nag fépp foo mën di nekk nga am surveillance bu mat sa liggéey ku ci bëgg lu leer nag wooteel gaaw ci numéro téléphone bi digg sa jaarale ko ci li ñu dippee rek ay acte de terrorisme l'exclusif l'exclusif nag moom xëy fësal ab militant boo xamante ne nii bokkees na ca Pastef wante dafa mujj am mbetteel ci Ousmane Sonko joxe ab confession boo ne nii fësal nañ ko ci Ousmane Sonko dafa bëggoon rek euh, daal di euh, daaneel nguur gi euh, jaarale ko nag ci ab xayma kaddu yu nga xamante ni tegu ko fenn waaye muy xam le ne bu njëkkaan da ko jëloon au sérieux tey nag xàmmeetu ko moom ba tey ki nga xam ne moo di militant bi nga xam ne nii dafa mujj gedd ci biir kàddoom nee na dafa ruggoon sax manifester ngir joxe ab dundam wante jàpp na ne Sonko jaralu ko ci mbirum mës gënu ko tudd muy xam le itam jox na nopp ki lee di Adji Sarr mi joxe ay détails yi gën a leer ci ay kàddoom 24 nag moom njiitu réew mi Macky Sall fësal ak nataalam ki li di Ousmane Sonko ku nekk yi tamit teg nga ab stratégie ngir rek fës ci langue politique bu fekkente ne Pastef la fi mu toll nii nañ ak mouvement m d Euh, benn bokk yaakaar nag moom ci langue gi la nekk tamit waaye mbirub Sweet Beauté gi euh, tax na nag euh, ñu bëree bëri ci langue politique yi gën a jóg rek ngir fasalaat seenu bopp jaarale ko nag ci ay beta ci ay ci ab boo xamante ni fës na loolu ak lu ci mën a am audio bu Barthélémy Dias bi ñu naan sax du moom ba mu génn weddi ko journal bi xëy na ci fësal mbirum terrorisme ak acte yu ñaawteef yi nga xam ne demee ko dañ ko ci ndoxteelu weeru mars gi ñu ca ñu nga cay ki nga xam ne nii moom moo ji Ousmane Sonko ak lu ca mën observateur yi nag ñoom ñu ngi avertir nee nañ Macky Sall mii fas yéene wutul dellu ginnaaw ndaxte ci xët yi ñu ngi naan lu dee ci mbuub des ca. Hmm. le mandat moom xëy fësal manipulation politique bi ñu gëg a gàll ci ndodd yi Ousmane Sonko ñuy xam leen dañoo taxaw teem ngir euh, yàq ki nga xam ne moom moo di euh, Sonko. l'enquête l'enquête yéenekaay yi moom xëy fësal euh, reprise activité ci wàllum politique gi kon mu ma ko joxtee woon rek ci sànq ci xët yi enquête nee na mbirub sud bote bi dafa rek gën a baxalaat li nga xam ne moo di arène politique bi Benno Bokk Yaakaar jamono ji taxaw na teem ngir dikkaat mbirub sud bote opposition dañ caa sukkandiku ngir mouvement M2D organisé wu fi mu toll nii taxaw ab say Karim Wade moom dafa mujjee yónnee sax fukk ak juróom-benni oto 88 yoo xamante ni PDS la ko jox ngir ñu amal ab tournée magnifique massifiée particulier las las yéene kaay moom xëy fësal nataalu njiitu réew mi euh, Macky Sall mi ñuy àddune ay kàddu yu waroo ak mauvaise de euh, euh, mauvaise communication nakal la jege ñaale njiitu réew Macky di dugal ci guuta ki nga xam ne moom bu di njiit gi te xamul ci dara yéenekaay yi mu ngi ciy indi ay leeral. Hmm. ñu wax ci les échos. les yi nag moom xëy fësal ak euh, concertation gi nga xam ne njiitu réew Macky Sall doraat na ko euh, di dialogue national bi nga xam ne nii moom activé waat na ko moom njiitu réew Macky Sall jox euh, Famara Ibrahima Sagna deux mois muy ñaari weer képp ngir rek mu xool nes def bu boucler travaux yi nga xam ne door na ko ak fan la Famara Ibrahima Sagna di mujj jamono ji nga xam ne ni Sénégal ci guutal nekk ak fitna gu dakkagul. le quotidien le quotidien yéenekaay yi nag xaddu ci classement wu Sénégal génn na ci top 10 gi rapport Freedown euh, euh, 2020 dégg 2017 2020 la ñu fësal ni nag Sénégal jamono ji mun nañ jàpp ne libragul à 100 pour euh, réew mi réew mi quotidien moom xëy fësal ba tey ci rapport googule rapport Freedown House Freedom House plutôt ci wàllu démocratie Sénégal nag moom libretul noonee le journal bi xëy fësal. le témoin le témoin yéen kaay ne maa lay wax li tax ndax démocratie ak liberté Sénégal dafa génn ci rang yi te loolee mun na ci bokk ci ay fitna yoo nga xam. xamante ne nii euh, day juddu ndaw ñi duñ leen bàyyi ñu manifester société civile bi naka noonu waaye am na leneen lu ca lees waxul. Mm-hmm. Dakar Times. Dakar Times ne lees waxul gi du lenn ni mooy ni LGBT yi amuñu euh, dayoo gu rëy bi wóor ci réewum Sénégal tax jamono ji mënut a bokk ci classement wu démocratie en Afrique. Direct News. ne euh, mbirub pharmacien ci Sénégal seenub jafe-jafe bu ñu weesoo chômage gi am sa diplôme ba pare di taxawaalu insuffisance officine yi mooy rek pharmacie yi bëriwul politique pharmaceutique bi nga xam ne war nañ ko tëral te tëraluñ ko njaayum garab yi yu bon yi ne fi xuus tax nag euh, direct news def gëstu bu yaatu jëmale ko ci secteur pharmaceutique dem ba jàpp ne sax ministre de la santé euh, dafa rek euh, faalewul secteur pharmacie bu weesoo loolu benn décret kese kese lañu mujj la ñu a amal ñi nga xam ne ñoom ñoo di pharmaciens yi te décret boobu la ñu ko xaati niki at muy décret bu décembre te loolee maître Abdoulaye Wade moom moo yéenekaay yi nii ab euh, jëya bi am ci euh, géej yi euh, Thiaroye sur Mer nag dañu rek ñàkk ñett ci seen i doom yoo xam ne dañoo réer seenu mbokk gisuñu leen ba tey wër gi nag fi mu toll nii mu ngi wéy ngir rek ñu xool ndax jaf ba gis mi Limaamu Ndiaye Malick Kane Ndiaye ak Modou Mar ñoom ñett nappkat yooyu ñoo réer seenu mbokk ni ki ba tey la tribune ci la yegg si sax ne lii ab jëyee la ca Thiaroye géej réerub ñetti nappkat yi nga xam ne seen i mbokk ñu leen di wër ba tey waaye tamit bokkaas na ci juróom ñetti ci euh, nappkat yi nga xam ne ñu ngi leen di wër te gisuñu leen euh, Sénégal lu toll ci euh, téeméer ak ñeent fukki nappkat réer nañu at bu jot sax dañuy lim xayma gu toll noonu. Sud Quotidien Sud Quotidien ni damay dugg. collatéraux yi nga xam ne accord de pêche yi ñu ngi koy amal ci diggante Sénégal ak Union européenne muy xam ne ne euh, koom-koom ci wàllu géej gi dafa nërmeelu te liñ ci mën a jàpp mooy Moustapha Dieng lañ jox kàddu moo nekk syndicat wu pêcheur autonomie li mu xam ne mooy ne Sénégal day perte euh, juróomi at gu jot lu toll ci euh, fukki milliards ci suñuy koppar te moo ne bu accord demee nu mu doon demee Sénégal may gët ñi nga xam ne ñoo di nappkatu Sénégal yi ak bu nekk Sénégal mën na dugal fukki milliards ci suñuy koppar loolee mu daal di koy xëy fësal. Le Soleil. Le Soleil yéen kaay moom def gëstu gu yaatu yaatu jëmale ko nag ci euh, ex forbé di prison wu xale yi léegi ñu dippee ko euh, maison d'arrêt et de correction bu ànd euh, cellule yi lañu dugg xool xale yi nag nan lañ fay dundee ñu dem ba dippee ko cellule de l'espoir maanaam yaakaar day ji du fekkente ne xale yi tën nañ seen i mbokk ba ñu yaat leen yóbbu ci boobu boobulee bu ñu fa jógee tamit mën nañoo am mujjanteel gu mucc ayib le soleil yéen kaay def ci ab gëstu bu yaatu ci 12 ak 13e page am source a source a moom di xëy jox kàddu waa Mbàkke ak jafe gi nga xam ne am nañ ko ci coupure courant coupure pour robinet euh, muy ndox ya nga xam ne saa su dafay am jafe-jafe ak seen jafe-jafe ak seen o benn agent ay agent wu seen o sax dañ leen a mujj door dóor yi métti làpp leen làpp yi métti ci diwaanu Mbàkke lii quotidien lii quotidien yéen i kaay moom def ab gëstu jëmale ko ci rek ginnaaw Papa Thion ginnaaw nag ma moo décédé fasaloon na CEDEAO en cœur CEDEAO en cœur googu sax mujj naa atterrir yegg ci euh, tableau CEDEAO mu mag ma. stade stade yéen kaay xëy fasal fanweer rek benn gaynde yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar ci diwaanu Brazzaville euh, match bi yoon dox ci diggante euh, Congo ak Eswatini ñu ngi koy waajaligum ñu nemmeeku nataalu Diao Baldé Keita ak ci xët yile. sunu lamb xëy fasal nag nataalu ki di Ama Baldé.